Alib, le goût naturel du lait. Pour un quotidien rempli de bonheur et de douceur. C'est Nico. Découvrez la nouvelle carte QR Orange Monnaie 100% sécurisée et gratuite. Rendez-vous en agence ou dans nos points de vente. Gunnenopolé, Gunnewood, Orange Monnaie. est-ce Orange Monnaie. Tous les moyens sont bons pour boire du thé Floria. Floria, Floria, règne avec Orange. Amoul mul perterezo. Royal Horizon Baobab, fil free, téléphone 33 939 71 71, adresse route des hôtels, Somon. UKO Master accrédité à en audit, management, informatique, sciences politiques, comptabilité finance, droit des affaires. Oh Royal, Burundori. Complexe Sofia, Momo Fashion, Harlem City, M60 Collection, Bashik

laal thème yoo xamante ne képp ku ci nekk war nga ci gis sa bopp soo si gisul sa bopp di nga ci gis sa mbokk. dama ni bu ngeen bëggee seetaan série bu sincère série boo xamante ne dafa bëri ay ñam waxtaan ak ay surprise. xaj na ci famille yi mën ngeen ko seetaan ak seen kër ak seen waa kër mais aussi tamit nekk na loo xamante ne dafay yeete. votre série d'échéance à partir du 1er février à ne pas rater sur la chaîne YouTube de Marodi TV et sur Yoff. yéen ci seen bopp xam ngeen dina cuqal mu dina bëri ay suspense ak ay mbir. su thème la bu leen ko raté. Déchéance, c'est à partir du 1er février, Inch'Allah. Retrouvez Déchéance sur Marodi TV et Sunuyof à partir du 1er février. jubal neuf heures jot na. papa ambassade baa ngi fii si ginnaaw tardé ko moom. waaw mais yow sa rendez-vous bi dix la di yow bu jógul heure bi kañ nga nar a jóg foofu nag mu xamal la benn affaire sooy tardé ñu lay daax bu ne waxuma la ko woon nag de. waaw waaw naa waaw.

Wow Cathy. en a def en fait j'ai un rendez-vous ici si ça me demande de visa étudiant et toi tu fais quoi ici. ah ouais pareillement moi aussi un rendez-vous à 10h. ah bon bah 10h10 apparemment on est dans le temps. d'accord je ma terminer mais bi rek <laughs> ok on y va. c'est bon job. il dit depuis ce matin certainement dinañ ah d'accord.. C'est bien je pense que nous on commencer à faire ensemble On effectivement bon yow on se retrouve quand même 17 h c'est bon j'espère..? ok ça me va ok D'accord..! je me prépare bien man mënumaa sax lijjanti sama bopp extrait de naissance. sa bopp rek nga xam gis nga man démarche yi kese laa tayal sama papa moo ma takkal po temps yi ne ma kut ko kut sama master bi moom. ma continuer ko Canada. oh man sama papa musul bëgg ma jàngee fu dul Sénégal ma koy un bon jour rek daan na ma Canada laa dem continuer sama étude. waaw quelle coïncidence c'est bizarre non. bizarre na kay coïncidence yi mi ngi bëgg a bëri de. bon bref tu dis quoi d'une invitation à dem brunch je suis désolée mais je vais vous donner un texte xarit vite fait une prochaine fois allez bye bye. xam nga da baax yenn saa yi ñu génn changer heure tuuti wàññi tëju bi quoi. wa donc yaay fay rek maay baax. <laughs> mais yow kat yi ku la waxoon maay fay yow sa yaram du daw. attends yow naroo fay nii. mais xalaatu ma ko damaa yorul sax. <laughs> yaay kasare yow doo sax nit. mais bon bref mais rax yi coow yi bëri na trop temps yi rumeur yi ñu may dalee fu nekk. Luz man ma waxal baax na tant que jëriñu ma fen ak sàcc rek je suis bien. mais sa diggante ak Toch man déjà gaayan bob neexuma duguma mais bo démé boy dugg ci mom nga xalat noni quoi parce que occasion bi rek lañ doon xaar hein ah. leuse su ma tenté woon expérience bi li yëpp duma ko xam man dama def ay sacrifice pour Toch pour te dire hein fanaan na sama néeg ba fajar sama papa japp ma amul lu ma si waxul yaa ngi may dégg mais suma ma def woon li âge bi dem ba am 25 ans di ko def kan mo may rectifier. kon léegi jeex na bon je suis en 100% avec lui mais benn affaire rek laay quoi Tu ci combat bi dem ci ba te xajuma ci il yow dara metti. mais <laughs> ñaar la de mhm. sa que ak sama copain Tu mm. yow que man ak Tu alors que yow de la gëj <laughs> loolu dara après fayal addition bi rek yow ça va. <laughs> waaw baax na. déjà dama lay rassuré génnul ak moom te mosul génn ak moom loolu moom leer na ma. lu la si leer. xanaa du wax ak Kati. Kati du ma fenn te expliqué na ma seen problème yëpp ni mu demee nee na ma yaa ko provoqué mu riposté te amul benn intention pour génn ak Idi wala di ko xëccoo ak yow kon foofu daanu nga ba mu bëri ok yow loolu rek nga ma indil information. dama lay calmer rek pour nga génn ci yi nga ne gis nga kat yi bëggul keneen ko dul Toch ndem Toch bàyyi na ko sax mais Toch rek la bëgg imaginel Toch fanaan na kër kat yi ba papa ba kat yi yëg ko. eh taxawal ba moom maa déggul Toch fanaan na kër kat yi. si gis nga risque yooyu yëpp bu ñu jël ndax Toch kon génnal foofu du rival. ok yaa ngi may soog a wax nag lu ma neex. léegi loo nar. dara. man sax damay ñëw dem da ngay demaale. mais deal bi nag. loolu dee na. allo. waa xarit. cas. cas bu rëy am na xale yi am nañ fit. Kati bu école Ndiaye école Ndiaye moom collège Ndiaye wàcc ba zéro. Kati bu collège Ndiaye la papaam bett xaaju guddi. mu nekk ci naka sudul noonu te ak ki mu nekkaloon naka sudul noonu. benn marchand ambulant la jaaykatu fonde buy fréquenté collège Ndiaye man de damaa waaw xale yi dañoo am fit de ah Kati Kati kii yaa baax na ma bon <laughs> kenn du yow. Adja bépp bi waxu jàmm de xaaral ah, ma jàpp ko allo ki ne yow ani jëy naa woo mu dugg. lan la defal nànk waaye yéen est-ce yéen dëkk bi ma nekk ci ngeen nekk. dégg ngeen lasgaa lu mu wax si kati ak tos bii kaabu saf. ah loo may wax nii. ah wuy sama ndey da koo tëddee. coupé léegi ma xool ko kat yi bu école nu jaay école nu jaay moom collège nu jaay dina wàcc parce que kat yi bu collège nu jaay la papa lii de moo dàq ba xaaral léegi ma woo jéy naa xam naa yëg na ko mais damay gën a leeral franchement man yenn méchanceté yi man mënuma ko comprendre Yak vie jàmbur ñu ci zéro pour lan mais lii nag génnewuma si ñoom ki ne dinaa dem ba seen kër nag lijjanti yamale leen une bonne fois pour toutes. non je ne pense pas lii mënuñu ko yegg li xew sama kër waxuma ko avec une personne qui n'est pas digne de confiance yow laa si waxal Windows ak Leuze à moins que Toch génn di ko wax et franchement il n'est pas du genre. attends kon kanti loolu kan la war a doon man je te le ñoom ne la. seytaane yi la loolu moom dinaa ko. fii yéen si jaar. waaw le leen ba la il se trouve qu'on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit ah ok kon da ngeen yaakaar ne maa leen fenal leen de xamal naa la ko Maïcha sama làmmiñ moom dama ko téye sama yoon nekk ci problème bu jàmbur j'étais juste venu pour apporter mon soutien et puis ça. ma histoire bi yëguma ko woon dama xam ne lu mel nii mënul am rek te duma fi ñëw non t'inquiète pas c'est pas grave de toute façon lii yëpp c'est pas important hey Cathy lii c'est très important d'ailleurs sax c'est seetuma ci comme je l'ai dit rek lii dinañ xam que ne dinañ la ko mais yow Maïcha c'est quoi ton problème da nga am problème ak man. il y a un problème tu me le dis en face en fait lan mooy problème bi. nit buy changer couleur tout le temps faw ñu moytu ko. Kati foo jëm. xam naa foo xam loolu dëgg bu wér péng la loolu lu ma la si waxul mënoo ma ko wax. laay fit la am Trop..! moom la moom la hmm. torop kii booy bulo sa liggéey rafet na hmm. mais las gaa na fen de gis nga affaire xam laajuma la dara te ak yow xamante nañ bu baax te yewoo sa et je n'ai qu'une seule question lan laa la def ba nga may fenal fen yi yëpp. fen astafurla raam raam kati man dinaa fen kati man du fen di mi ngi ko pullo. kati man sama liggéey fen bokku ci kati ba may prêter serment dama waat ne du fenal kenn ah kati teranga bi ma jin sa papa jin ko si koñ du def lolu. gis nga sa yi ngay def ñeneen nga ko def mais pas man parce que xamna la bu baax wéyu nga bandi nga te téyewoo sa làmmiñ bi te dafa du ma la fenal. daal eh bu ma jege de. yàlla moo mos a nekk hôtesse de l'air sama réew kat yi. ah kat yi inutile de l'accuser ainsi. kati man bu dee il a raison aussi. macha allah yaa ko xamul mais man xam naa ko bu baax. bu dee mos a bu dee mos a dégage. jàppale wax si. kati bu ma leen a réew fenal benn jour kat yàlla naa yow gis samay régal kat yi. yow la wax ci affaire bi lu ma ci waxul mënu ko ci wax bu xamoon lépp dëkk bi toj ah. waaw. amul de yoruma.